Euh, monsieur Mbuub ñoo la fas yéene nag jox li nga xamante ne euh, mooy euh, cadeau bi lee ma bëgg mbokk yi xarit yi ngeen tàccu leen bu baax a baax a baax mesdames et messieurs. maintenant nous allons remettre. lii nag mooy délégation mairie de Kaolack monsieur le premier ministre xam naa kenn mënut a invité nit ci ñaari xew-xew yu jegewoo waaye le 25 la ñuy def suñ fika bi te fika bi yaa ko tijji yaa ko barkeel. li may wax rek mooy nit ñi danañ ma danañ jaaxle ne ma noo mën a organiser FICCA organiser ñaari événement mais monsieur le premier ministre jàngal naa ay nit won naa leen ba tey man nañ événement yëpp dañ koy organiser sans ma impliqué ci ci dara lu dul ñëw def discours loolu laa ciy def la FICCA nag yéen ñëpp ngeen dégg ko la 25 la au 14 voilà ñii ngay gis waaw le premier ministre Baye Cheikh Awa Balla Gaye noonu toog ñu ngi koy ziar. ki leen jiite ki leen jiite mooy madame Tall nekk premier adjoint voilà mooy premier adjoint voilà ñi ñëpp ñi ñëpp ay conseillers lañ la mairie de Kaolack mais c'est des opérateurs économiques Kaolack rek moo am quatre ah xaw ma feneen waaye ñun suñuy conseillers. am nañ quatre-vingts wala presque cent pour cent ñëpp ay nit yoo xam dañuy ñëw di relever activement et loolu tamit incha allah loolu lañ bëgg a wone ba nga xam ne nii Kaolack dana dem fi nga xam ne nii moo ko Cheikhul Islam bëggoon Baye Niass et te loolu ñu ngi liggéey ak sunu xarit bu baax Pape Demba bi tey bu baax a baax a baax voilà. waaw jërëjëf waa Rabita ñoom it ngi fi ànd ak El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindi ak Serigne ak Serigne Mbakke ak Serigne Moustapha Mbakke mi ngi noonu. donc asalaamaaleykum bonjour à toute l'assemblée monsieur le maire Serigne Mboup ni mu ñu présenté dafa mel ne dafa yëg ne li ñu doon def alors que dañ ko defal surprise parce que lu tax ñu defal ko surprise mooy nit baax na ndax mbokk yaa ko wax Dakar mi ngi fiy liggéey mi ngi fiy jëriñu mais ñun jàpp nañ ne. ñun waa Kaolack ñun ñoo moom Serigne Mboup fa la dëkk kon ñun ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoo taxaw jël fii premier ministre mosieur Boun Abdallah Dionne ñu xam sa digganteem ak moom ndax lu mu mus a organiser yaa ca jiitu jël yeneen autorités yi fi nekk yépp jël ki nga xam ne mooy monsieur Pape Mademba bi tey jël ki nga xam ne mooy Ahmed Youssouf Benjeloun et sa délégation muy waa Kaolack jël ki nga xam ne mooy président Sidi Diop euh, muy président chambre de métier pour que ñu defal ko li nga xam ne mooy motion donc c'est une motion spéciale de reconnaissance et de félicitations l'ensemble des collaborateurs institutionnels kaolackois de monsieur Serigne Mboup en ce jour ont adopté une motion de reconnaissance et de félicitation à son endroit, afin de magnifier son leadership, son engagement permanent et ses, efforts déployés pour le développement et le rayonnement de Kaolac. FEA Kaolac est conjointement signé par Madame Diayembo, euh, première adjointe au maire, pour le compte des élus de la commune de Kaolac. Pour le compte du personnel de, la commune de Kaolac, M. Moustapha Adien, secrétaire général. Au niveau de la Chambre de commerce, pour le compte des élus de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolac, M. Ali Diouf, premier vice-président. Pour le compte du personnel de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, M. Abdoulaye Thiam. parce que dafa jiite ay structures yu metti yoo xam ne dañuy allier combinaison entre personnel ak élu. élu mënoon na wax baax na personnel ne bon na ci ñun déedéet loolu amul donc au niveau des deux institutions yi nga xam ne yàlla dimbale ñu ne ñun waa Kaolack moom mu géré ko muy personnel bi muy élu yi ñun ñëpp sargal nañ ko ci li nga xam ne moom la def nii muy suñu ndam euh, te aussi ñuy ñaan aussi li ko yàlla mën loo bu ëllëgee fii ak cent ans yàlla na la fi fekk monsieur le maire waaw Euh, bés bu ñu fi jógee tamit yàlla na yéex yàlla na bu sa jëf fay. jërëjëf. amiin waaw euh, jërëjëf. madame le maire Ndeye Lobé dina ko joxe ak monsieur le président Aliou Diouf voilà. waaw Thierno Madani Tall yegg si na léegi Thierno Madani Tall yegg si na léegi. madame Anta Thiam dina ñëw taal Tall pour la chambre de métier. dalal leen ku mu yegg si Thierno Madani Tall. Thierno Madani Tall moo yegg si léegi. président Thierno Madani Tall Thierno Madani Tall yegsi na léegi nan ko indi nan ko dalal waa na ñëw fii na ñëw na ñëw nii indi la na ñëw fii na ñëw indi faal faal Fall na ñëw merci beaucoup na ñëw fii. Thierno Madani Tall. Thierno mesdames et messieurs qui vient d'arriver donc monsieur Mboup. waaw. Tall. sa war fuuti maam. sa maama Tall Tall ci réew mépp Cheikh Omar Fouti Tall sa maama Tall ci réew mi Thierno Madani taal taal sama ma taal taali ci réew mi taal nee na ko ni ko sees fi mu toog sëriñ nee na mu ñëw toog place am sëriñ nee na mu ñëw moom nee na fii lay de sëriñ nee na du <laughs> ayo kep premier ministre ngonoog jàmbaar ji voilà merci beaucoup euh, monsieur le premier ministre avant de vous donner donc mbokki xarit yi bu ñu pare ci kaddu gi rek euh, bu nu ko joxe monsieur Mboup mu daal di ci euh, sànni kaddu bu noppi ñu daal di def visite guidée daal di dem ci stand yi ànd ak ñëpp ñu gunge ko balaa ñuy jàll ci cocktail bienvenue bi. waaw bu nu paree ci am na cocktail. kon nag ñu dalal bu baax sunu waajur sunu sëriñ. Cerno Madani Taal mu nekk sama xarit ndax sa waajur mën naa nekk sa xarit ndax yàlla moo ne wa taxasalaahu Ibrahima xalilan ndegam yàlla moo am xarit mu nekk sama xarit nag wax dëgg yàlla damaa demoon di ko ko yëgal pour mu ñaanal ñu rek mu ne dana ñëw te mi ngi nii ñëw na te lu ma sa xew ci kër gi buñ ko ko waxee rek mu ñëw xale bii doon wax fi tey màgget keroog biñ koy mayee moom moo ñëw maye ko jërë ngeen jëf kon nag waa kawlak li ñu wax dama leen di delloo gërëm waaye nag di sant bu baax wax naa ko ci tubaab léegi sama waajur wu jigéen mooy ajaratu Mariamu Jeng ndax bu dul woon moom duma ma juddoo Kaolack bu woon moom duma ma mi ngi ñuy jàppale mi ngi ñuy taxaw bu baax a baax mi ngi boole famille bi ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal aw fanam bam dundaat lim dundoon mu dundaat ñaaram wala ñett yoon incha allah mooy mbokk sëñ am sa mooy mbokk sëñ dan mii toog di gërëm bu baax sama xarit ngilaan wax dëgg yàlla mu nekk sama jigéen ñu xamante bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg te xamante bi rek ci contrôle fiscal lañ xamante wax dëgg yàlla <laughs> mu am <laughs> incha allah loolu lañ xamante dafa am solo bu baax a baax a baax ndax dafa rafet ñëpp xam nañ ne contrôle bu rafetee ngeen xamante ñu ñu jàppoo ba léegi léegi wax dëgg yàlla